bi jabari Cheikh Béthio bi Aïda Diallo di tarbiya Cheikh Béthio doomam yaa ngi toog nit ñi di gis mu koy defal teranga waa léegi yéen ngeen ne ku sa jëkkër gërëm nga texe ngeen ne àjjana mu sa doon jëkkër ndaw si di tarbiya jëkkëram àdduna yëpp di ci teg bët jëkkëram génn àdduna ngeen ne yàlla du ko fay jigéen du jiite nangam jiitewul mais yàllaa ko fay dafa tarbiya jëkkëram yéen ñuy wax ñu roy ci mag ñu baax ñi kii jëkkëram ba muy dund lu mu am jox ko jëkkëram buggul dara ci àddina di dajale ay millions ngeen koy teg ba doom yaa ngi dund ñëpp a ngi am na doom yu Cheikh Béthio yoo xam ne bi mu gaañoo laa leen xam mosuma leen a xam mais Aïda ngi dund di tarbiya ngeen koy gis ba Cheikh Béthio na jàpp ci Aïda mi dëgg-dëgg mooy jàpp ci man yéen ñëpp ngeen teg seen bët jabar juy tarbiya jëkkër ngeen waroon a jël opportunité boobu yedd seen jabar yi sëriñ su bëri seen jabar leen ragal su leen jabari jaarloo nii ñu jaar nii mais kii jabaram def na ko góor def ko kilifa def ko sang def ko sëriñ ci kanam yi askan wi ñëpp ngeen teg ci seen bët mu génnaat ne ngeen yàlla du ko fay ah waaye alxuraan daf ne jazaan ñu ne mu ne dama leen di fay exactement li ngeen def yàlla fay soxna Aida Diallo ñu ne non non yàlla noo danga nga juum mhm, yoonu sëñ Tuubaa wi yoonu sëñ Tuubaa terewul jigéen ju tarbiya jëkkëram yàlla fay la amu ci yoonu sëñ Tuubaa bi bañut loolu nen waxante dëgg ñu tas kër gi parce que Cheikh Béthio arrangé wu dafa dérangé Béthio la sant ñëw nañ ci yoon yoonu murit gi am ci mbooloo am ci xaalis am ci riir télévision Sénégal star yëpp cantaakoon leen politique bi star yëpp cantaakoon leen yoolu commencé ekkati problème amoon na jamono Sénégal ku mooy Cheikh Béthio Cheikh Modou Kara moom tojoo ci murit yi moom ñu ëppoon benn sax xalif général wax dëgg yàlla lii la yàlla dogal sëñ Modou Kara Cheikh Béthio poñe woon leen yoonu murid nii arrangé wu leen sëñ Modou Kara moom xam ngeen ko moom dafa lekk xam-xam naan ko déséro ko toog bu noppee sax xam-xam la ñi société bi gën a bañ bàyyi leen mu récupérer leen defar leen nga dem fële sëñ Moustapha si orienté sëñ Moustapha toog na mu ne Cheikhou Tidiane moo ko ne modernisel suma tarixa te gëm na ñu ne non non non sëñ Moustapha Nangam waa bi papaam gaañoo dafa tongoo ba dafa nangam su tongoo papaam bàyyi ak doom la mais tongoowul sëriñam doom ju baax sa baay mun naa juum nga ñàkk d'accord ak moom sa baay mer mere la mere wante baay ak doom c'est normal lu ne ñu yegg ko sëñ Moustapha yàlla di gën a yëkkati di gën a taaral dundam di gën a teg ci kaw képp kenn mënu ci dara donc dama bëgg ngeen xam ne tarixa yii yépp nag dangay lay ne yonantu jëfe na ko ci ndàngam waaye du lu leer nañ luñ mën a teg baaraam te ku fi jub baax soxlawoo woo tarix bu fekkee ne mën ngaa julli waxtu juróom mën ngaa jàngal alxuraan lu baax nga jéem lu bon nga bàyyi looy doyee tarixa tarixa pour ñu bon ñu mel ni man la nga xam ne boo demee naan sàngara ba màndi sàcc cagatu juutu juutal def yu bon yépp nga ñëw nag jël sa kurus jël sa kurus téye astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ngir yàlla jéggal la waaye yow yàlla dimbale na la yaa ngi jéem lu baax yàlla dimbale na la luñ la sunna la nga topp lu luñ ne dafa xaraam nga bàyyi looy doyee tarixa pour la pour la amuloo ci njëriñ